على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نقول وبالله التوفيق وبعد أيها المستمعون الكرام asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokku jullit yi mbokki auditeurs u rajo Dabax FM 103.0 seen mbokk al oustaz Gora Sy moo ñëwaat di leen defal émission diine ak dundu doomu aadama ñu leen di nuyu di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay thème bi passé woon mu ngi ci faslun bunt boo xam ni ci al aada cëri doomu aadama yi lay wax bi passé ñu jëloon al lisaan làmmiñ ñu wax ni ñu wax ci liñ ci wax lépp nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tënk na rekk ci ne man yudmin lii maa bayna lixyayhi wa maa bayna rijlayhi admanu lahul janna képp ku ma assuré li nekk ci diggante ñaari ŋaamam yi mooy ñaari lexam yi muy làmmiñ ak lépp ak li nekk ci diggante ñaari kam muy pëyam nee na ku ma ko assureel ba doo ci mooy yàlla ma assureel la aljanna moo tax lu doy waar la ñu wax ci liñ ci wax tey nag ñu jël beneen bunt ci cëri doomu aadama yi muy loo xam ni yàlla moo nu ko jox muy xéewal mu bokk ci li sunu boroom di wax ni wa in tauddu nicmatallahi lan tuxsuuha soo leen doon lim xewal yi ma leen xéewalal yéen doomu aadama yi do len mana xam fu mu toll muy xewal gu reey ñu war ci jaamu yàlla te sori ci lépp lo xamni da fay naqari yàlla sunu borom subhanahu wa taala ndax man yataadda xuduud allaahi faqad zalama nafsahu yàlla neena kep ko xamanteni xamante jéggi nga samay frontière li mala tere yang koy def neena kenn tooñu la yaa tooñ sa bopp tey ñu jël boobu muy alyaddaani ñaari loxo ñaari loxo cër la yu am solo yonent bi sallallahu alayhi wa wax ni man raa minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi képp gis képp koo xam ni gis na lu bon gis na lu ñaaw na ko soppi ci loxoom kon loxo luñ war a mën a jaamoo yàlla la mu daan ni fa in lam yastatia soo ko mënta soppi ci sa loxo amoo dara jay soppi ko ci sa loxo fa bi lisaanihi na nga ko soppi ci saw làmmiñ soo amul dara jay nag soppi ko ci saw làmmiñ na nga ko soppi ci sa xol nee na loolu moo gën a tuuti ci imaan ñu mantee am tuyaaba ju rëy ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat na ci benn xadis bu gàtt ni imaatatul aza fi tariqi sadaqa fekk lu ñaaw ci mbedd ci aw yoon moo tax lislaam bàyyiwul dara ba ci li nga xamante ni moom mooy place yi li ñëpp bokk islaam yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ci nee na fekk lu bon ci mbedd sax nga randale ko jële ko ci mbedd mi sarax la masalan fekk nga xeer woo xam ni oto mën na cee jaar ponoom crevé nga dindi ko wala fekk nga dëkk ci mbedd mi nga xam ni nit mën na cee jaar gaañu nga dindi ko nee wala nga fekk lu salte ci mbedd mi nga randale ko ba nit ki du ci loru nee na loolu dangay am yoolu ku mel ni ku jël dara saraxe ko kon nekkati nit mën naa jëf ci loxoom loo xam ni da ciy am tuyaaba ju ak ni sarax toll fa yàlla subhaanahu wa taala ñu war ci tamit di liggéey liggéey loo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko digle ni tamit ñu ciy liggéey liggéey bu rafet ba wax ni inna allaha yuhibbu ida amila ahadukum amalan an yutqinahu yàlla dana bëgg jullit bi buy liggéey ab liggéey mu rafetal liggéey ba te loolu dañ koy dañuy liggéey ci loxo kon loxo jumtukaay la boo xam ni mën nga caa amee coobare bëgg-bëgg sunu borom kon nit ki nay jëf lu baax ci loxoom liggéey it ci sa loxo dafa am solo lool lool lool ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni nga dem liggéey ci sa loxo jëfandikoo ko moo ëpp doole nga bañ a liggéey di laaj ñu jox la wala ñu bañ laa jox moo tax mu ne la an yaxtatiba ahadukum xuzmatan ala dahrihi xayrun min an yasala ahadan fa yuatiyahu aw yamnaahu looloo tax waxkat ba wax wax ju solo ni y a pas de métier bu ndaw amut nit ki lépp lu muy liggéey di ca faggoo loo xam ni daf koy jariñoo moo gën muy laaj ñu jox ko wala ñu bañ koo jox moo tax yonent bi jël sax daan ni dem taxañi benn sa yu matt jël benn sa yu matt taxañ ko jaay ko moo gën ngay laaj ñu jox la wala ñu bañ laa jox léegi nag laaj bi bari na nit ñi dañuy laaj rek nekk ci mbedd yi di laaj am na ñoo xam ne boo leen gisee ñuy laaj danga naan waa ñii lan mooy tax ñuy laaj parce que pattunu làggi wunu amuñu lenn loo xamante ni war na leen mën a tax ñuy laaj waaye dañuy laaj ngir bañ euh, liggéey te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xiir na saxaaba yi ci ñuy liggéey léegi laaj bi bari nag kenn ku nekk dangay gis muy wut sax euh, ay nit di leen dajale di leen laaj loo ñuy laaj di ko jox te loolu doy na waar euh, liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat na ci benn xadis ne loxo bi féete kaw moo gën loxo bi féete suuf te loolu liggéey moo koy may doomu aadama yonent bi xiir nañu ci liggéey ba wax nu ci ni yàlla sax daf nu ci jëf ji jox jox mu rëj bu réerëy loo xam ni ci wàllu mbay la ko wax mbay bay le Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy al maktuum waxoon rek ni sëriñ fàllu daf ko bindaloon ñetti baat ni ko ab sëriñ nii lay nii lay mel ñetti baat yooyu bi ko sëriñ Fallou bindee dafa wax ni danaa ko bind de waaye cheikh ci xam seen cheikh ci xam-xam bu rëy ba ak dégg ga su ñëwee rek li ma koy wax daf koy xam mu bindal ko ñetti xaraf muy jaju ba daan ni ko ab sëriñ nii lay mel sëñ Cheikh daal ni déglu leen sama baay fàllu nee na ab sëriñ dafay jàng julli bay waaw bay dafa am solo ba yonent bi ni maa min muslimin yagrisu garsan aw yadrau daraan fa yakulu minhu tayr aw insaan aw bahima illa kaana lahu bihi sadaqa amul benn jullit buy njëmbat am njëmbët walla muy mbay am mbay picc lekk ca loola wala bàyyi ma lekk ca loola wala nit lekk ca loola lu dul ni loola dana ko ko defal ci kontu saraxam danañ ko jàppee comme ku sarax masalan nga nga bay sa gerte teg ko foofu ab euh, nit benn jullit benn nit romb fa dagg ca jëfandikoo ca ca gerte ga lu mu tuuti tuuti yow fekke ko sax waaye loola yàlla dala koy defal yow ci kontu sa sarax day mel ni saraxe nga bu dee picc moo ca lekk kadalika bu fekkee ni itam bàyyi ma dikk dagg ca ñax ga lekk yow dañu la koy defal ci sa kontu sarax kon doomu aadama war na mën a góorgóorlu ci liggéey ci loxoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni yàlla daf ko bind mu nekk ab jàngalekat moo ko wax innama bu'istu mualliman man man dañ ma yónni ma nekk maître ma nekk enseignant moo tax enseignement lu am solo la lu rëy la ndax yonent bi nga xamante ne moom mooy sëriñu sëriñ sëpp mooy kilifay doomu aadama yëpp moom nee na moom yàlla daf ko yónni mu nekk kat métier moo doon jàngale yonent boobu nee na man am sa kàllan ala amali yaddihi am sa maxfuuran lahu ku gontu lekk ci sa liggéeyu loxo loo xam ne danga ko ñaq gontu nga doon ku nu jéggal te am na bàkkaar yoo xam ni julli du ko baale du tax yàlla baal la ko istigfaar sax du tax yàlla baal la ko lii tax yàlla baal la ko mooy nga faggu lu la lew dund ko dunde ku dunde kook sa njaboot dundale ko sa njaboot lu am solo la ñu bàyyi ko xel moo tax ñu xam ci lii ñu wax rekk suñ ko déggee dinañ xam ni loxo xéewal gu rëy la goo xam ni doomu aadama mën na cee faggoo payuk àllaaxira te Sidi Haaji Malik Si radiyallahu taala anhu wax na ca xutbaam bu rëy boobu xutba bari na sax loo xam ni man moom laay xutba ajjuma ci jumaay siinu xaali ji taamiru daaril baaqiya awla min daaril faniya tabax kër gi nga xam ni mooy des moo gën tabax kër gi nga xam ni day jeex daan ni atabnuuna maa ku taskunuun ndax da ngeen di tabax loo leen dul dëkke waaw duñ fi dëkk sax même buñ fi dëkkee duñ fi yàgg duñ fi sax dañuy dem bàyyi ko fi wa tajmauna maa ku taakuluun ndax da ngeen fi dajale loo leen dul lekk wa takaasartum xatta zurtumul maqaabir ngeen di ëppalante ba keroog ngeen di dugg ci bàmmeel yi dañ ci bàyyi xel kon loxo xéewal la goo xam ni mën tantee sàkku payum àllaaxira mu dugg ci wax ji sunu boroom wax ci biir alquraan ni wabtaxi fii ma ataaka allah daaral aaxira na nga ci li la yàlla jox ci xéewal nga fàggu ci kërug àllaaxira kon sa cër yi na nga ciy julli sa cër yi na nga ciy joxe azaka na joxe azaka ci sa loxo ngay génne joxe azaka ak sadaka sarax kon euh lolu moy li tax yàlla bindal le sa ñaari loxo yi waye du lo xamni yàlla def la ko bindal muy ñaari loxo yow nga ci jëfëndiko ay bakkar baxul ndax serigne touba radiyallahu anhu waxna ko ci waxam ju réy jooju ni aadaaka sab'a raaci wanzuran kayfiyata raayi wa kullaha fadan daan ni fa haaka adduha lisaanun batnu farjun yadun rijlun wa aynun usnu nee sa juróom-ñaari cër yi na ko sàmm te nanga xool sax ni nga koy sàmmee te yépp na ko wattu mu ne juróom-ñaari xaaral ma limal la ko mu jëkk caa tudd làmmiñ teg ca biir teg ca sa pëy teg ca sa ñaari loxo teg ca say tànk teg ca sa bët teg ca sa nopp mu ne nag sa ñaari loxo yi nanga nga ci moytandikoo dóor ab jullit na ci moytandikoo jël moomul moo tax mu ne am amal yaddaani bihima fal tajtanib li muslimin darban wa sariqan yaa arib waa léegi nag waxuma dóor jullit waaye dañ ngay gis ku jël ñaari loxoom yi rey ci jullit rey rey yaatu na lool léegi li ngay dégg ray kenn xamul nu mu toll danga naan sax nit ñi ndax niteeti nan li sunu boroom daan wax doon wax ni ulaika kal anaam bal li ñoo ñu dañoo mel ni ay jur ay rabu àll wala sax ñoo gën a sànku rabu àll waaw nga jël moo xam bu fekkee ni dangay jëfandikoo luy tax ngay lool lor ab nit ci xeetu dorog te koo bàyyi waaw parce que jullit wërte jël ñaari loxoom yi di ci dóor ab jullit sax waxantuma laa euh, mu di ko mu di ko mu di ko rey sa ñaari loxo yi xéewal la moytundikoo cee jël loo moomul jël alalu jullit lii sëriñ bi mu ngi ko wax ci téeréem bu ñuy wax mu layyinu sudur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jullit jullitay mbokkam bum ko tooñ waaw bum ko tooñ bum ko doyadal bum ko xeeb daal di wax ni bépp jullit ci moroomu jullitam dafa xaraam ci moom ñett dereetam léegi nag tuur dereet ji yaatu na waaw yi moom dafa mel ni léegi dañ ko banaliser te dafa xaraam laa yaxillu dam damm imri in illa min ihda talaata dereetu jullit warut a génn lu ci ñett yi dereetu nit warut a génn lu dul ci ñett yi sëy bu zaani kilifa guy njaaloo am jabar ba pare di njaaloo walla am jëkkër di njaaloo wa nafsu bi nafsi ak bakkan ak bakkan ku rey nit nag dañu la war a rey ak kan wa taariku li diinihi ak ku génn ci diine lislaam lii rek lañu la may nga rey ci doomu aadama waaye lu dul lii waroo ci doomu aadama yonent bi nee na nit dereetam jullit ci moroomu jullitam dereetam dafa xaraam ci moom deram dafa xaram ci moom alalam dafa xaram ci moom te ñaari yi daanaka loxo moo koy def benn bila la làmmiñ di def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis boo xam ni mu ngi ko jëlee ci boroomam mooy xadisul qudsi yàllaa ko wax yàllaa ko wax yàlla nee na inni xaramtu zulma an nafsi ala nafsi wa jaaltuhu muharraman baynakum dama xaraamal tooñ ci sama bopp man yàlla man yàlla ma xaraamal tooñ ci sama bopp du ma du ma tooñ te moom mooy buur su ko neexoon di def lu ko neex ci doomu aadama bi lu ci doomu aadama du man waaye moom dafa araamal tooñ ci boppam nee na def tooñ nag muy lu araam ci seeni diggante kon nag bu leen di tooñante waaw yonent bi sallallahu alayhi wa nee na tooñ ay lëndëm lëndëm la yowmal qiyaam azulmu zulumaatun yawmal qiyaama azulmu zulumaatun yawmal qiyaama nee na tooñ ay lëndëm lëndëm lay jural kii tooñ yawmal qiyaama bis pénc ba te kenn ku nekk war naa bëgg leer bis pénc bis pénc ku nekk bëgg naa le gis leer ngir xam fa ngay jaar ba dem fa nga xam ni moom mooy aljanna waaye lëndëm yàlla nañ ci yàlla musal kon nag nañu bàyyi tooñ tooñ baaxul te tooñ gi bari na ëpp doole sa moroom duma ko bari na def lu la neex bari na te tegoo ko fenn ñu moytandiku ko ndax yonent bi kat yàlla moo lu mu wax maa ko wax te nee na az zulmu zulumaatun yowmal qiyaama waaw ba pare yàlla mu wax ni inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu muharraman baynakum fala tazalamu man dama xaramal tooñ ci sama bopp def ko muy lu xaraam ci seen diggante nit ñi nekk ñu ngi tooñante rek defe ni kat du mujj fenn waaye am na koo xam ni mu ngi tudd raqib mu yàlla yàlla mu ngi tudd raqib basiir mu ngi tudd tamit basiir kuy gis lépp dara ump ko raqib kuy fuglu lépp ba pare nee na laa yugaadiru saqiratan wala kabira illa ahsaha amut lenn lu muy bayyi lu doomu aadama bi di def wala mu di ko wax lu dul ni danañ ko bind te kenn ku ci nekk boole na laak ñaari malaaka raqib atid waaw raqib ci loxo ndeyjoor atid ci loxo càmmoñ raqib di bind lépp lu baax atid di bind lépp luy safaan boo ko gaawul tuub kon doomu aadama war na xel loolu bu baax bu ëllëgee nag li bind rekk lan lay jox fa amma man utiya kitaabahu bi yaminihi ah fa yaqulu ha um iqra'u kitaabiya képp ku nu jox téere ci sa loxo ndeyjoor danga nga banaan ay waay xool leen li ma am waaye ku nu joxi téere ci sa loxo càmmoñ di nga taxaw sax banaan yaa te nii kuntu turaaban ak a neexoon tey ma doon suuf waaye doo ko doon parce que su su ma yëgoon weesu na nit nag war naa góor góor lu ba bàyyi xel ci ëllëg su ma yëgoon fekk su ma yëgoon weesu waaw ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tooñ tooñ ay lëndëm lëndëm la yowmal xiyaam wax nañ ko kon loxo bi bul ci dóor ab jullit waaye bul ci jël alalu jullit itam ndax yàlla sax dafa bañ ba indi benn xadd benn atte loi cikuy jël alalu jullit mu ne assaariqu wassaariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakaalam min allaahi wallahu azizun hakim sàcckat bu góor ak sàcckat bu jigéen kon dafa xam ni góor dina mën na sàcc waaye jigéen itam mën na sàcc mu ne ñoom ñaar ñépp na ngeen dagg seen ñaari loxo waaye maanaam ki sàcc na nga dagg loxoom bu dee góor la ki sàcc bu dee jigéen la daggal loxoom lool la loi islam indi mu ne loolu mooy payuk li ñu def ndax li ñu def dafa dafa dafa metti yàlla muy mbugal bu jóge ci yàlla nee na yàlla nag ku note la waaye ku am sagesse la ku xakim la ku xereñ la ci li mu def moo tax lu mu atte buñ ko fa bàyyee rek gis conséquences yi des fois nga gis nit di jël xam na ni bu jëlee dañu koy yoonal ci biir aw dinañ ko teg ay daan waaye après mën nañ ko génne walla ñu def ay pexe ba génne ko waaw mu génnaat bu gisaatee dara daal ni ah naa ko jël ndax waw waye bu loi islam la nak mom dañi nan dag loxo ku ñuy dag sa loxo mom xam nga ni do jël wata bo démé makkatal mukaram karam da ngay gis ni bu waxtu julli joté do gis sax ku ub bitigam ku tej dedet dañi dal di dox rek jëm ci jakka julli ngir xam nañ ni fi kenn du fi jël waw éducation islam dafa am solo waw ay ba teyit foofu yaa yonent bi am na lu fi leeral ndax amoon na ñu jiitu woon am na ku sàccoon ci jamono yonent bi bokk ci xeetu Xuraysh ñu ñëw ci yonent bi bëgg ko e, négocier pour ñu bàyyi ko ndax fi mu bokk ci askan yonent bi ni lii moo alagoon ñu leen jiitu woon ñu leen jiitu woon bu shérif shérif bi maanaa mooy ku tedd shérif loolu lay fiti firi shérif moo tax da ngay dégg ñu ne xadisun shérif adiis bu tedd shérif mooy ku tedd ku am dayo ko màgg mën na doon shérif ci askan mën na doon shérif ci de palaasam waaw makaanam fi mu fi mu tollu mu ci dayo ñu tuddee ko shérif yonent bi ni loolu dafa alagoon ñu leen jiitu woon tax na yàlla wàcc ci ñoom musiba mu rëy rëy ndax ñoom ku bokk ci dayo bu rëy su sàccee dañu naan nañ ko bàyyi bu fekkee ni nag ku bokk ci ku néew doole la su sàccee ñu teg ci moom loi yonent bi ni maa ngi géeñ ni sama doom jii di Fatima nga xam ni mooy sama doomu xol ma bëgg ko lool bintu Muhammad walaw anna Fatimata bintu Muhammad saraqat laqataa muhammad yeddaha maa ngi jiiñ ci ne bu faatima doomu muhammad sàccoon damay dagg loxoom waa léegi lii rek mën nañ cee jànge loi amul kii amul kaa mais fii nag ak kumba am ndey ak kumba amul ndey day xew ba ci ñi nu ñi nu ñi nu yilif da ngay gis ñu ne kii doomu diw la nañu ko nañu ko rafetal kii doomu diw la waaw yaakaar naa ni doomu diw moom diw lu mu màgg màgg màgg màgg mënta màgg ba ba gën ba ba toll ci dayob seydina muhammad sallallahu alayhi wa moom mi nga xam ni foo teg dayoom fudul ni danga ko teg fa nasaraan ya tegoon seenub yonent weesu na ko loolu la yu imam Buseyri wax ci burdu nee na bul wax yonent bi bul ko jël di ko teg fa nga teg fa nasaraan yi tegoon seenub yonante di ko wutal di ko jiima def doomu yàlla waaye boo paasee loolu boo ko bokkaale wut ak yàlla rek foo teg yonent bi yonent bi weesu na foofu ci daraja te yonent boobu moomu xam moo wax ni walaw anna fatimata bintu muhammad saraqat la qataa muhammad yaddaha faat giñ naa ci yàlla ni bu fatima doomu muhammad sàccoon damay dagg muhammad dana dagg loxoom waaw fii nag doy na waar léegi doomu diw la waaw rakku diw la doomu diw la rakku diw la jarbaatu diw la moo def tojaange bi nañu ko bëlëf bëlëfal bu benn citoyen bu bu mel bu néew doole defee dara ñu ne ah ah kooku daal nañu ko toroxal nañu ko def nii nañu ko def naa waaw yaakaar naa ni lii rek war na wax ni loi moom kenn waru ko ignorer waaw lii rek hadis bi yonent bi wax doy na waar trop waaw hadis bu doy waar la bu ñu war a bàyyi xel la war war a mën a teg baaraam la ba xam ni rek ay njiit itam jiite wudu nit ñi parce que dañ leen a gën waaw waaw dañuy njiita mënta ñàkk rek waaye nag Seydina Omar ibnul Xattaab sahaaba bi yonenti boobu nee na woon atastaabiduuna annaasa wala wa qad waladathum ummahatuhum ahraara ndax da di jël nit ñi def leen i jaam te seen yaay yi jur leen ñuy ay gor waaw déggal wax boobu Omar waaw atastaabiduuna annaasa wa qad waladathum ummahatuhum ahraara ndax da ngeen di jël nit ñi jàppe leen jaam di jëflanteeg ñoom kom ne ñoom ay jaam lañ yéenay buur yi te ñoom ñëpp yi seen yaay jur leen ci ngor ñuy gor la fadla li arabiin ala ajamin illa bi taqwa nit la muy gëne nit mooy ragal yàlla mais du ay sama kii nii sama kay naa yu bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax waaw kon loxo lu nu war a mën a jaamoo yàlla la waaye du lu nu mën a xalage doomu aadama yi yonent bi nee na njaalokat bi bi muy njaalo jamono bi muy njaalo génn ci imaan dootul julli dootul ku gëm yàlla waaw sàcckat bi jamono bi muy sàcc génn na ci imaan nekkatul ku gëm yàlla waaye nag tuub gaaral na ko tuub tuub lu ñu gaaral la ci moom bu tuubee réccu yàlla man na ko baal ndax yàlla nee na inna allaha yaxfiru dunuba jamian ñu bàyyi xel loolu li des ci waxtu wi bariwul li des ci mbind mi it bariwut waaye ku ñu mën a dolli rek nga dolli ñu ci waxtaan wi ñu téléphone bi 88 628 40 30 88 628 40 30 88 628 40 30 ku ñu mën a dolli ci li ñuy waxtaan nga dimbali nu ci dana am solo lool kon jullit jamono bi muy jël alalu jullit alal alalu nit nekkatul mu'min bokkatul ci daairatul imaan waaw ñu bàyyi ko xel moo sëriñ bi ni wa fi lwadiati aw il amaana laa tatanaawal bihima xiyaana nee na li ñu la dénk sax ak kóolute gin la jox bu ko jël ci say loxo ngir wor keesu daayira bi ñu ngi la koy dénk bul ko jël pour wor keesu jàkk ji ñu ngi la koy dénk bul ko jël pour wor keesu réew mi ñu ngi la koy dénk bul ko jël pour pour pour war bul ko jël mukk war waaw li ñu la dénk bul ko jël ci say loxo ba pare di war ndax màndargay naafiq ñett la yonent bi moo ko wax ida xadata kadaba wa ida waada axlafa wa ida tumina xaana naafiq su waxtaanee day fen su digee day faussé suñ ko wóoloo mu war waa kon tey naafiq yi ba ci kaw waaw dënk nañ la alalu réew dénk nañ la askan wi nga wor leen nañ xool loolu kon bul jël alalu nit ñi ba pare jublu ci wor gis ngeen histoire nettali na ci jaar-jaaru ku tedd ki gën gi mbindéef sallallahu alayhi wa wax nañ ni moom bi muy doon tut tànk ci zahir ci la ko waa Màkka din doon dénk seen alal di ko ko jox tuddee ko Muhammadul Amin Muhammad la tudd Seydina Muhammad ibnu Abdillah doomu Abdillah booba sax duunagul yonant yàlla yónni ko ndax ñeent fukki atam ci la ko yàlla yónni waaye waa Màkka daan nañ ko dénk seen ami biñ koy wax Mouhamadul Amin lu ndaw la te moom lañu yàlla royloo kon jikkooy kóolute dañ koo war a roy ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sinon bàkkaar bu rëy la ci jullit ñu dénk ko mu war ñu ko dénk ah na ko ñëpp dégg nag na ko ñépp bàyyi xel ci lu suufee ba ci lu ci lu kawe am na ñu ñuy dénk xaalisu association am na ñu ñuy dénk alalu euh, daayira am na ñu ñuy dénk alalum commune waaye am na ñu ñu dénk alalu réew lépp ñu teg ko ci seen loxo ñépp lu ñëpp bokk nag waroo ko defe nu la neexee waaw ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni man aqada amwaala annaasi yuridu adaaha adallahu anhu wa man aqadaha yuridu itlaafaha atlafahu llahu képp ku jël alalu nit sax abbu ko ko sax fas yéene ko koo delloo yàlla dina matal yow ci ci yow kóllëre waaye ku jël alalu nit ngir sànq alalu doomu aadama yàlla dina la sànq yàlla nañ ci yàlla musal ba tey kon sa ñaari loxo yooyu sëriñ baa ngi lay tere nga jël ko di ci raay ajnabiya jigéen joo xam ni sañoo ko nuyu sax bu la joxee loxo sëriñ bi moom tere na la sax nga jox ko loxo moo tax tabaarakallaahu fan yee passé dama dem Thiès ci gàmmu shérif ndeysaan ñu ngi toog ak shérif bu mag shérif bu tedd am ndeysaan soxna su baax soo xam ne ndeysaan daa xir ñëw di ko jox loxo waaye shérif bi dafa téye loxoom nii daan ni ko asalaamaaleykum muy loo xam ne action bu rafet la waaw des fois gis kilifa goo xam ni moom yooyu du ci bàyyi xel te kilifa la moo tax mu ne wa biha lams ajnabiya aydan xadwaari fusta bil hadiya nee na laal jigéen di ko ci sa loxo jigéen joo xam ni du sa soxna te xaram na la nena na nga moytundi nga moytu ko kon dinga nga gañe ci ak njub mbokk yi daal moom lañu ñu indi woon tey ci alyadaani ñaari loxo mu mel ni li ci am solo mooy def ci lu baax luy tax am nga am ngërëmal yàlla li la ci yàlla digal muy liggéey ak fekk lu baaxul nga soppi ko ci sa loxo fekk lu nekk ci yoon te muy lor nga dindi ko di ci liggéey di ci dundal sa njaboot di ci saraxe ci sa loxo loolu la ci sunu boroom digal waaye di la ci moytandiku jël loo moomul ak lor ci ab jullit ak euh, liñ la dénk nga jëfandikoo ko ca namu la neexee nga moytu ko ci sa loxo ak di laal alal yu di laal ay jigéen di caaxaan loolu daal lañu lay tere ci tënk loolu lañu leen indiloon tey ji euh, lépp lu baax ci wax ci nag ci sunu borom subhaanahu wa taala la lépp lu ci manqué ci sunu ñàkk fasaaxa la ñu ngi koy jégalu bu baax a baax eh, in uridu illa al islaah mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilay unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu